waaye di ci waxtaanee lépp lu jëm ci garab yi cosaan nga xamante ni bi macha allah Sénégal dañ koy xaar di ko déglu ci ñaari boor yépp mu mën a maq mën a siim Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyuwaat. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa wala fala taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ahyunin bi ma kaanu yaxmalun maa ngi lay fa yàlla ji saa di nuyu jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di nuyu kilifa diine yëpp di rawatina Cheikh Mouhamadul Moustapha mu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu Soxna May Mbacke bintu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu Moulay Hassis Guèye ak Serigne Khadim Lo Gaydel di nuyu Sidi Baara Ndiaye mu du Mbay Ndiaye ca Tiwaawoon maa ngi koy nuyu ak euh, képp ku ñuy seetaan daal ci biir réew mi ak bitim réew. voilà macha allah Cheikh Baara Ndiaye borom def gis Cheikh Baara. Euh, tey dañuy démarrer yow ci li nga xamante ne bii mooy defe naa ne lu ay di njàmbat sax tey moom la ñuy démarrer lu xew wax lu ay di njàmbat muy li nga xamante ne bii meeting Pastef bi ñu waroon a amal ëllëg foofa ca diwaanu Mbàkke mu mel ni préfet dakkal na li nga xamante ni bii mooy mbir moomu wane ne daal du am. nan nga jàngatee euh, mbir moomu. waaw mbir moomu. Mm, ñu ngi ko. ñu ngi koy njëkk a ñaawlu di ko métitlu waaye donte nag euh, ñun ñi ngi bëgg a xam réew mi mm-hmm. te ñu ngi bëgg a yëg li xew mm-hmm. maanaam ndax wolof njaay def ne bokk ci coow li xam lu xew a ko gën mm-hmm. gis nga bëri ci démb la ma sama njaboot gi nekk Touba bañ réunion ba noppi ne dañuy jënd nag comme ni ma ko waxee woon ne dañuy man maay defal añ magi Pastef yëpp ma ne leen euh, bu leen jënd nag parce que damay ragal ne ñii mën nañoo xëy xëy wax loo xamante ne nii du du jalgati loi bi. Hmm. ñu ne déedéet ñoo njëkk a déposé ma ne leen Sénégal. Hmm. moo tax Bouba Ndour man tooñ leen ni leen man Bouba laa gën a yërëm ci réew mi. Hmm. waaw dama ko yërëm a yërëm a yërëm. parce parce que moom daa gëm état daa yaakaar ne état am na ci Sénégal. te Sénégal amul état. te déedéet Sénégal état amu fi. lu tax la. mitin bii dafa am lu muy wane mooy. dañoo njëkk a bëgg a mitin fii ci osta euh, stade euh, nu mu tuddati place de l'obélisque mhm. ñu ne sànc BRT bi moo fa nekk waaw ñu bàyyi ko fa dem Kër Massar waaw tànn ab samedi dem déposé ca préfet ba préfet waa APR ñëw ne dañuy mitin mhm. ñu daan ne waa Pastef kon du ngeen fi mitin ne waa APR ay mitin waa Pastef ne kon bàyyi nañ nga xam ne mitin bii jàll waa Pastef doon def bis bañ ko bëggoon a def defuñu ko fa waaw waaw maanaam bis biñ tànnoon pour def ko defuñu ko dañu leen a forcé beneen bis buñ bëggul ñu jël mm-hmm. waa APR yi waxoon ne dañ fay mitin ba heure ba jotee teguñu ko seen tànk mm-hmm. nga xam ne ñoom buñ naan respecté leen institution yi mm-hmm. defe naa ne institution bi jëkk mooy préfet parce que gox boo ma mën a dem préfet ba mooy ka fay teewal état maanaam boo bëggee wax ak état préfet ngay waxal boo demee nag bay nax préfet naan ko damay mitin samedi te mitinoo kon kooku respecté woo benn institution respecté institution du caagi ne da ngay nekk ci sa ruq naan bàyyi leen police yi dóor leen bàyyi leen police yi ngàdd leen ngeen respecté institution yi institution da koy respecté ba booy dem di ko yëbbal aw kayit naan ko damay mitin mu nekk loo gëm kon wane na ne waa APR respecté wuñu institution yi jóge ci léegi def nañ foofu keroog mitin mitin boo xam ne nañ ko bëggoon a defee defee wuñ ko nañ ko bëggee ba toll ci mitin bi dañoo coupé courant ah. kon ba tey rek muy ñàkk loi ak ñàkk norme yu nekk Sénégal ñu jóge foofu ne léegi dañuy def mitin Mbàkke Mbàkke nag mooy Touba man fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màgge préfet boobu ëpp ma fa dara hmm. ndax wóor na ma ne boo demee juddoowu fa wala amu fa tus état rek moo ko fa yebal indi ko fa pour mu nekk fa hmm. bi ñu bëggee mitin demuñu ci jaay doole demuñu baas suñuy baas waxuñu ko dara dañoo dem ba ca moom déposé na ko lii dañ bëgg a def hmm. waaye nag ñun xam nañ ne ñun ay citoyen lañ li ñu war a def def nañ ko mais xam nañ ne préfet tudd turu préfet la yor waaye ab préféré la Ah, préféré maanaam militant APR lañ jël teg ko foofa muy def ab muy def politique loolu mooy dëgg muy def politique politique saine hmm. man xamoon naa ne du bàyyi mitin bi jàll xam nga kañ laa ko xam hmm. keroog sam dimanche ba ma gisee mitinu APR bi mitin APR mitin bi APR doon def fii ci. Euh, Pikine waaw ma gis mitin ba esec rek laa ne ñoom Cheikh Thioro yàqu ngeen. Hmm. parce que comme échec nañ rek du ngeen ko fi defee. gis nga bu ñu réussiroon mbooloo mi bari ba kenn mënu koo takk. dañ naan ko mën na def. waaw mais démb Macky Sall daa dem. waaw picc yaa ko doon teeru di ko puub. puub bi picc la fu fekk. waaw donte Thiès gépp fu ñu xam dugg nañ fa pour bëggoon a concurrencer waaye puub bi picc ko teeru. dégg nga ñu jóge fa dem dem mitinu Mbàkke ba daanaka mitin ba boo ko séenee yaraax nga yaakaar ne lañ tuddee mitin bi. loolu moo tax mitinu Mbàkke bi du mën a am waaye nag dinañ ko jàppaat. Ah. parce que préfet moom amul ay loi ki texte damaa bëgg ko benn Buuba Nduur waaw mu xam ne réew mii hmm. maanaam ay loi moo fi amut ay loi amu fi amu fi lu fi am ay loi amu fi hmm. li fi am bu ma ko waxee kenn du ko ma weddi ah mooy jaay doole kenn wérantewul ne réew mi ñu am doole daf du seen doole yi bàyyi du seen doole yaay hmm. ñi ngi koy jël di ko jaay ñi amul doole waa APR ñi ngi def abus de pouvoir muy ñoom doole ji ñu am ak déggoo gi ñu déggoo ak gendarme yeeg police yi ñi ngi ciy profité ñu bëggee mitin ñoom ah. dinañ mitin bu ñu bëggee doxantu dañuy doxantu bu ñu bëggee séddale flyers dañ koy defar dara du leen ci fekk. Mhm. waaye képp koo xam ne maanaam andoo ak nguur gi. ak noo mën a def ak foo mën a nekk maanaam yaa ngi sentir ñi lay jaay doole. Mhm. yaa ngi sentir bëgg def dara ñu ne la doo ko fi defee. bëgg wax dara ñu doo ko fi waxee. loolu mooy li am Sénégal. Mhm. Sénégal nag waxoon naa fii ci plateau bii ne. maanaam jéego marché ko jiite. jéego jéego marché yi ni jaay carotte. moo jiite moo jiite réew mi moom tey jii laa koy waxaat. lu wax loolu li ma bëgg a wax mooy waxuma ne Macky jeeg la. waaw waaye dama bëgg a wax ne boo gëmmoon dem ba ca euh, syndicat. waaw ca maire ya teg seen saami salaat ak saami carotte di jaay. nga tànn ca benn maire yóbbu ko palais. waaw wala lii Macky Sall yi def dong lay def. mooy réew mi nekkut ci loxo. intellectuel yoru ko doxut ci loi jaay doolee fi nekk ak hmm. maa tey képp mooy dox ci senegal léegi nag état bi. Hmm. damay yëgal sénégalais yi ne lii ñu Ousmane Sonko di jaay. tey nag laa koy wax. waaw maanaam bu dul Ousmane Sonko maanaam loolu lu Sénégal soxla la. Sénégal institution yi nërmeelu na. réew mi daanu na. ñu ëpp doole ñu ngi koy wan seen i morom. ñu yor police kuñ een ñu ngi lay wan ne maa yor police di la jël police di ko jal ci sa kaw mel na ko yor seen berse alma. réew mi dafa am loo xam ne état la. gis nga ah. ab procureur ab juge. état ko jàngal état ko teg fa mu nekk état la. Macky Sall wàcc Ablaye Wade wàcc Sonko yéeg. xamuñu loolu ñoom. li ñu xam mooy xëy dem liggéey di liggéeyal Sénégal. Mm-hmm. Euh, ab docteur état la. Mm-hmm. ab gendarmerie état la. Mm-hmm. ab pharmacien état la ab préfet état la ñooñu état la moo leen moom. waaw Sall wàcc ak Macky Sall yéeg seen yoon nekku ci. waaye bu ñu demee ba léegi nag wóor na leen ne yéen da ngeen di gis juge yoo xam ne ay politiciens lañ. dañuy def yëfi militant maanaam dañuy dugg ci biir politique bi di seet ay opposant di leen jaay doole jiñ yor ci justice kenn du waat ci yàlla ne amut gis ngeen fii ay gendarmerie yoo xam ne dañuy politique gis ngeen fii ay tey ak bu dul tey préféré mooy ñi may wooye ay préféré nga xam ne duñ préfet dara man maa leen ko wax ah? duñ préfet préfet Mbàkke du préfet tous eh, eh, waaw xuusmaa ñàpp la politique sain la militant APR la dégg nga ci boppi fas yi la yor maa ko ko wax nag moom waa Mbàkke bu ma meree na ma porte plainte ma ñëw Touba wuy si ko dégg waaw day politique parce que li def nii man xam naa ko te man xam naa lu mu wax ab jarbaatam bërki démb ku doon bëgg a jege ñëw ci meeting ba mu naan ko ah, wax ko ay wax yoo xam ne jërul ma ko koy waxaat hmm. waaye yow politicien nga rek li nga def nii yëfi politicien la mënoon ngaa nag sol sa mbubbum APR bokk ci parti yi hmm. moo gënoon ngay laqatu ci institution Sénégal yi ba noppi di politique hmm. am na fi li fi des mooy Sénégal liñ waa maanaam xam nga daaw maanaam ba fi Ablaye Wade yi nekk. agguñu woon ci Macky Sall bëgg a mitin ñu ne ko doo fi mitine. Mm-hmm. agguñu woon ci Idrissa Seck bëgg a mitin ñu ne ko doo ko fi defee. Ablaye Wade nangu woon na ñu dem ba buntu assemblée nationale taxaw fa en tant que sénégalais di marche. Mm-hmm. Ablaye Wade nangu woon na ko. tey nag jógee nañ foofu ñëw nañ ba àgg ci kenn du fi mitine kenn du fi marché kenn du fi waxee sa xalaat. Mm-hmm. loolu nag tolluñu fa woon dox nañ ba toll fi xam nga ñu jëm. nga nekk opposant nekk ci télé bi di wax wala nga bokk ci parti Pastef am carte membre ñu dem ci pharmacie bi ñu ne garab yii garab yi posen la garab yii garab yu baax la bu opposant ñëwee nañ ko jaay posen mu dee hmm. bu pouvoir ah mën faa yegg di day dem rek luy dem la di hmm. médecin nga ñëw ne damay faju ñu ne ci opposant la piqûre bu bon bi lañ koy piqûre piqûre la nga dee hmm. parce que ah Sénégal juge gendarme préfet pharmacie médecin yooyu Sénégal ko moom dem nañ ba loolu ñett ya moom nangoon nañ ko ci réew mi mu des garab yi ak ak ak faj mi baa duñ dem ba àgg ci dayo boobu parce que am réew moom day nekk ci loxo di dox ci ay normes ak i loi mais bu fekkee ci yëg-yëg ak kalan lay dox fu réew ma mënta yegg amut réew mi nag ki ko yàq hmm. te yàq ko ba mu yàqu yexeet te waroon ko mujj yàq mooy Antoine Félix Ndione ah, oui moo yor moom moo xamut luy doole parce que judduwut ci doole hmm. amut doole hmm. <laughs> xamut luy doole bari ki démb moo njaay fii la nekkoon Grand Dakar fu mu dëkk sax amu ko woon néew doole loo di yot dégg nga bi mu fi tàmbalee mos weccat ñu naan jàng ah, ah, jànkatu xasaa yi man damaa defoon ne sax sëñ Saaliw wooy sëriñam mais ndekam makay sëriñam parce que moom li sëñ Saaliwu jàngale dara la ci dul def moom Macky Sall lay jaamu comme yàlla jël gendarme yi Antoine bàyyil doole ñi nga gis nga bërki démb mus euh, Ousmane Ngom a fi nekkoon yor police ak gendarmerie fu mu leen loo ñu jëm fa mm. tey jii ma nga nee yorut dara te fii ngay mucc ah voilà man nag jàppoon naa ne bu la yàlla xañee doole maanaam amoo way jur wala jàppale amoo mag amooy rek mhm. état di la dimbali ba nga am doole ba yor li ngay jëkk a geesu mooy ba ngay néew doole ka toloon na yow mel na yow ànd ak yaayam amul fuñ ne amul lu ñu lekk amul lu ñu naan ñooñu la sa bët di tegu ci jàmbaar yi yow Antoine dafa waroon nekk jàmbaar yi mhm. maanaam ñi néew doole te nekk ci réew mi waaye moom jàmbaar yi mhm. képp koo xamante ne dangaa nekk ci réew mi mu gis ne déggoo woog moom politique police yi ñu fi jàpp lacrymogène léegi nii dégg naa Sonko ñu ngi koy dóori lacrymogène ca mairie Colobane ba mairie kii mairie mairie mairie Patte d'Oie ba mhm. Touba ña nga teg gendarme yee mu taxaw foo dur tourné gisi policier mhm. Antoine policier yi juróo leen jëndoo leen ah. aw bu doon te ne décret ma Antoine Sonko ko ëpp légitimité fuuf Antoine mës ta nekk dara loo xamante ne askan week ko jox moom big doo nga koy fal mhm. te big boobu lay fal dana la foole nga nekkaat fii doo am dara delluwaatal nga nekk nit te bàyyi sa jaay doole gii nga nekk ci réew mi man miin maa la ko wax nag dégg nga ma li ngay def nii tegoo ko fenn foo tourné sa noon foo romb noonu Antoine gis police ca wet ga loolu kenn tegu tegoo ko fenn te nekkoo lu dul ministre de l'intérêt donc nga su ci kanamee da ngay wàcc keneen ñëw fii ak ah? loolu moom lii ma wax nii nag mhm. maanaam suma xol laa wax sa xol nga wax li ñuy def ci réew mi teguñ ko fenn mhm. képp koo xam ne ne da ngaa branché la say loxo ne duma ma réew mi mi ngi jëm foo xam ne bis dana ñëw boo ne boo teelu ta jóg da nga ko réccu ñi gën a arrière ci politique ak ñi nga xam ne dañ daan toog di seetaan nañ génn. Mhm. ñu jàppale réew mi ku amati kayit na ko wuti ku war a wax na wax bu élection yii ñëwee Macky Sall moom du bokk waaye nan jël réew mi teg ko ci loxo yoo xam ne seen bopp bi du bopp fars d' accord waaw jërëjëf Cheikh Bara macha allah am na solo mais Cheikh ci mbirum bopp yooyu sax ngay wax ak ay kii du nekk candidat Amadou Ba de mitingam bi nga xam ni moom nga wax ni tekkiwul dara maanaam mitin ba nga ne moo waral sax ñu éliminer mitin bii nga xam ni moo waroon am Mbàkke ndax échec boo xam ni mitin ba échec na ko euh, loolu nga xam ni moom nga wax noonu Amadou Ba moom euh, foofa la taxaw wane ni réew mi ci ay loxo yu wóor la ne. képp koo xamante ni ki yaa fiy jéem a indi benn problème di ñàkk respecté yëf yi daañu dal ci sa kaw jubbanti la maanaam daal dal na ci kaw Sonko ba mu saf-saf Sonko it gis nañ ko mu dem parcelle ba dax ko Amadou Ba ba mu saf-saf daal ne kuy gën ragal di mboqat Amadou Ba la te yàggoon nañ noo jàngatee ñaar ñoo xamante ni bi démb ñoo bokkoon si jaada guñ daan jullee ak satala buñ daan jàppee tey ñoom ñaar ñëpp ñuy féewaloo waaw loolu nag euh, ñaari côté laa koy jàngate njëkk mooy mitin bi ci boppam mitin mm-hmm. bi moom maanaam ñoom dañ cee damaa mitin bi yaraax lañ ko waroon defee ji yaraax yaraax waaw mm-hmm. waaw mitin boo xam wala boo koy xanaa lañ ko tudde woon kon mm-hmm. waaw boo xam ne maanaam yaraax lañ ko waroon defee ñu doom dem duum defe ko Pikine loolu moom bo bokkul ba pare mobilisation bi normalut euh, bi ci des mooy man damaa def ne dañoo ñëw di pour pour fayu ci sonk man nag bi ñuy dem dama ne woon nan bàyyi ba timis jot ñu taal làmp yi doog a dem mm. ndax ñu xam ne ndax ñi ñu doon xëccool lañoo taaloon làmp mu rafet lool mm-hmm. làmp yi nag li tax taaluñu ko mooy bu ñu ko taaloon mm. danañ xam ne maanaam réew mi ci loxoy sàcc yu bari la nekk ndax da bëri gis ministre bu ñibbi waate ko téléphone am waaw bu ñibbi wute ko téléphone am bés bu ñu fayoon lamp yi mu ñuul kooku ñu taal seen portable waaw dana bari ñu xëy di def déclaration ne seen portable réer na leen mm-hmm. waaye xam naa <laughs> <laughs> dañoo ànd te wóolante wuñ mm-hmm. bi ci des mooy mitin bi dafa am lu ma ci jàngate mooy benn bokk yaakaar moom maanaam amatuñu yaakaar waaye ay bëgg-bëgg lañ am. amatuñu yaakaar ay bëgg-bëgg fa des. lu tax nga wax loolu. waaw xam nga yaakaar ak bëgg-bëgg dañoo nuróo te bokk na. Hmm. bëgg-bëgg mooy nit ki tëdd ci lalub dee. moom am na bëgg-bëgg dund. Hmm. waaye amatul yaakaar yi dund. waa bennoo nag am nañ bëgg-bëggu des fi. Hmm. waaye amatul yaakaar ci. voilà parce que ñoom def nañ le tout. pour keroog ñu défier opposition bi donte dañoo dem wut terrain bu tuuti. pour bëggoon bu feesee dell rek ñu ne gis ngeen fara terrain ba nag dem maanaam euh, balaa ñoo tàmbali kaar yi di yabaat di yóbbu. dafa mel ne nag politique may fay la vingt mille ñëw nga may nga nekk sama militant quelques heures day bëgg a jeex. dangay fay booy vingt mille ba noppi duñ la defal li nga bëgg. loolu noonu la demee. léegi nag euh, xeex ba fa am tamit. loolu dafa am lenn lu am mooy APR euh, maanaam dafa am loo xam ne xeexum ndono la. xeexu kenn mënu koo régler gis nga borom kër bu am bay barke. Hmm. day notum njabootam. waaye bu demee ba tëdd ci lalub dee. milliardaire boo dégg mu tëdd ci lalub dee te dee bettu ko. Hmm. balaa faatu dégg njaboot gay xuloo ci ëtt ba. Hmm. parce que kenn ku ne danga naan day uuf say rakk di wane ne mën la paa bi gën a jur. wala kenn du ko fi séddoo ba ma. looloo dal Macky Sall nag moo tax fu ñu daje xeex grand euh, euh, grand théâtre ba xeex. pa Pikine xeex. Mbàkke xeex nañ fa Fatick ñu xeex Kaolack ñu fi xeex fépp dañuy xeex que loolu xeexu interne la. Uh-huh. problème bi mooy xam nga léeg-léeg nit dana tëdd nit ñi xam na dangay dem te yow doo ko xam. waaw tëdd nit xam ne waaw mi ngi mel ne paa bu feebar doom yi dañuy ànd dem ci médecin ba médecin bi ne leen ah góor gi du jóg de dem de léegi nag ñoom bu ñu ñëwaatee au ñu wax ko góor gi dañ naan ko ah lii de am soj dong la. Hmm. dana wér de bu ko defee <laughs> paa bi dunda yaakaar maa Macky Sall ci étape boobu la toll. Ah. maanaam booy yi ñoom yëg nañ ni kii day dem ba ñoom ñi ngi préparé ku koy doon. waaw noonu la demee loolu tax Amadou Ba keroog discours bi mu def. defu ko en tant que Macky Sall moom boppam la doon investir ci biir yi wax. Hmm. parce que bu fekkente ne yaay xalifa bi maanaam yaay taawu paa bi. waaw paa baa ngi dem da ngay woote discours bu dëgër ci paa bi. Hmm. waaye li ngay woote lépp mooy nan gëm paa bi nañ ko déglu moom rek a fi nekk lu mu wax wax la. Hmm. waaye pour bëgg bu paa bi poussé boo fa nekkee. sa <laughs> discours boobu valable ci yow. loolu tax Amadou Ba keroog mu jël risque ne Macky Sall la parce que xool na xam na ni moom taaw la. te dafa war a dond paa bi il faut kon mu teel a wax ne moom mbir mi du ay xalaat ay discussion comme joxoñ moom la léegi nag ah. après di xaar ñu joxoñ ko looluy problème bi mhm. léegi nag euh, wax gi wax ci ba pare mitin bi tamit dafa am beneen problème mooy man mi ko doon déglu rajo damaa yaakaar ne Sonko la ñuy mitinal ah bon waaw non lu tax nga wax lool. ku jël micro bi danaan sonk Sonko Sonko sonk ba sa temps jeex nga teg keneen ñëw sonk sonk sonk Amadou euh, euh, Amadou Ba Aliou Sall <laughs> Pape Malick Ndour dégg nga ma Lat Diop ku jël. Mm. ñëpp Sonko Sonko Sonko lañ fa tudd Sonko. tudduñu ñu fa Macky ma ne moom moo leen fa dajale woon. Mm. voilà ndaje mi nag maanaam Macky Amadou Ba lañ doon investir ci pet. waaw boo xoolee. Mambay ñaam mi nga xam ne noonu Amadou Ba la ñëw fa. waaw Ablaye Daouda Diallo noonu Amadou Ba la ñëwut. Mm-hmm. dégg nga ku mel ne ay ñoom Cheikh Omar Anne maanaam képp koo xam ne. doo doo doo waa Amadou Ba rek. waaw maanaam keroog dikkoo ci marche bi. meeting bi benn kenn moo leen rax muy Abdou Karim Sall parce que moom waa boor bee la mais Abdou Karim bi mu ñëwee xam nga xam nga APR ba APR daj maanaam mobilisation ba ci bu démb bii ñu doon def cees mhm. ah mobilisation foo ko gis APR maanaam transiment yi la mhm. durisin APR mbay Ndiaye du indi nit mhm. maam mbay Niang amuti nit Pape Gorgui Ndong amuti kenn amuti nit ah, maanaam Abdou Karim Sall moo fa xaw a desee nit looloo tax bu ñëwee dañ koy salusi bi mu ñëwee indi ay nitam léegi dem ba gis na lii kat nekkate du mitinu Macky waaye mitinu Amadou Ba la. Mhm. booyee jël sees yi di dóorante. Mhm. dégg nga. lay problème bi léegi mitin boobu moom échec total la. Mhm. bu dee bu démb bi nag maanaam boo xoolee ci kanamu makki sàll gi. ngay xam ne li mu bëggoon amu ko. Thiès waaw ah pourtant moom kii na. dama ne na dama ne la ba soow mi mburóom dama ne baax na. boo xoolee ci kanamu Macky Sall bi. ak far ak ñàkku far ba wa. moo lay wax ne mitin bi échec na. ah nu ma essayé waaw ah, liñ maanaam effort biñ ci def ak li ñu bëggoon. waaw amuñu xaaj bi. Ah waaw ba pare bëggoon nañu heure bi fekk euh, Ablaye Dieye corrompre waa waa Thiès ba nangu maire maire maire kii ba nu mu tuddati maire maire Birame Souleye ba bu Macky Sall ñëwee dem fa directement. Mhm. loola nag daa échec. waaw biram téyal sa maire yi ba mu dëgër këng. waaw waaw APR dem ci dëkk boo xam ne yow maire yëpp amoo fa maire maanaam Macky sa APR daa perte Thiès ba ba xalan ko. Mhm. amu fa benn maire buy exister bu APR moom. Ah, ba pare bëgg faa yaakaar na yow yaa moom dëkk ba. waaw waaw moo tax ay Tamba fu ne nit jóge na fa. ñëw waaw. jërëjëf ak ak ak picc yi. Mhm. jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara euh, léegi nag. man dama bëgg a ñëw ak yow ci euh, beneen point bi muy diggante Ousmane Sonko ak sëriñ si. waaw parce que coow li moom bari na. Hmm. fi mu toll nii parce que dégg nga ki nga xam ni mooy xalif euh, Medina Baye. kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko am na ci internet beeg wax yi nga xamante ne bi ñu ngi ciy wax ak yooyu yëpp. Ah, noo jàngatee diggante boobu. Ah. parce que dana xaw a difficile de. waaw diggante sëriñ si ak Sonko dinaa ko jàngat ci ñaari anam. bu jëkk nag da may may ma wax ci Cheikh Mahi ci boppam. waaw ñëwal Cheikh Mahi. Mm-hmm. maanaam discours am bi ñett lañ ciy déggee. Mm. bu jëkk bi mooy yëg na ne moom war naa sant ma Sall nag parce que kuy defi jàng képp ku ca sonn war nga caa sant. Mm-hmm. waaye bi mu demee na ne mi ngi bëgg a sant ko eh, yëg na ne itam mi ngi bëgg sant koo xam ne neexut nit ñi donte defal na ko lu mu ko war a sant waaye sant gi mu koy sant neexut sénégalais yi mhm. maanaam looloo indi mu commenté sant gi mhm. ba dugalaale ci waxu saaga yi seex maa yi nag mhm. demut ci télé di ko seetaan man loolu wér na ma waaw du seetaan amatul page Facebook te wóor na ma ne lu nekk YouTube te wóor na ma ne nekkut ci TikTok bi kon saaga yi moom am na nit ñaa ngi saaga waaye dañ ko ko wax ña ko wax nag waroon nañ ko yëgal wax fi saaga yi jógee Mm-hmm. waaye dañ ko cee nax ndax dañ ko ne saaga yi am na waaye ñañ ko moomalee saaga yi saagawuñ ko mm-hmm. maa ngi lay waatal ci yàlla waaw tax Sénégal ak may déglu doo génnee benn sénégalais boo xam ne fii ci réew mi waaw waxuma nag muudu muudu waxuma ku nekk Kaolack ku nekk ku nekk ku nekkul ci réew mm-hmm. waaye ñu ne Kaolack ak Touba ak Njaaréem ak Ndakaaroog Gosaas ak euh, Tamba doo ma génneel ab sénégalais ah. bu ñu mën a identifier ci benn parti ci réew mi muy Bougane muy Abdourahmane Diouf muy Malick Gakou Mm-hmm. muy PDS. Mm-hmm. muy Pastef doo ma génneel benn militant parti boo xam ne mas nañ koo gis muy saagab sëriñ. Mm-hmm. rawatina ab kilifa diine maanaam ah. rawatina ab xalifa sénéral benn sénégalais buy nekk Sénégal gii di dox di wax nga mën a topp ab commentaire am baa widéowam baa waxam. wala wakaalam muy wax ci kaw ab ab ab xalifa général lu dul dëgg lu dul noona. amut ci réew mi. bu fi amee. seex maa saaga yi am na waaye nag nañ la wax ñi koy def ndax bu fi amee. waaw Souleymane Jules Diop de lañ mas a gis. waaw mu téye sañ Abdou Senghor mii di ko wax lu ko neex. wax ju ñaaw. Mhm. ma ngi ca wetu Macky Sall. waaw. Euh, Abdou Latif Coulibaly moo yoroon porte parole Macky Sall taxaw ci diggu pale bi tegi kayitam. waaw Cheikh Salihu Mbacke mu baax mii mu naan ko Moussa Salihu. waaw wax ko ko ay yooni yoon ba waa Touba tàng jër naroon koo defanteeg moom. waaw ma ngi ca wetu Macky Sall. Mhm. ci jógee. Koura Macky. moo fi taxaw. dem ba kër njabootuk Cheikh ma Niass. di ca tànn ko bàyyi ñas jur ak kum jurut di ci wut di saaga sa rak. yoo bokkal bàyyi. bam ginnaaw saaga yooyu ci la ko Macky Sall jël def ko député teg ci wetam. Mm. ma jambal jaañ. moo fi dugg ci njabootuk Alaaji Baara di ca bind lu ko neex. ba murid di jóg ne dañuy reyanteeg moom. Mm. ma ngi wetu Macky Sall. Mm. Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Mm-hmm. fii la taxaw di daggal. mbokk mbaay rakke rakke rakke xalifa bii di wax tey saaga ko bàyyi kon te ku nit ku boo ngeen bokkee bàyyi ko ko saaga bàyyi saaga nga ko. Mm-hmm. ma ngi ca wetu Macky Sall Mhm. dégg nga ma aji saar génnal na boppam ne mi ngi ñaan ñi koy jàppale tey saaga bàyyi mbay MC nañ bàyyi saaga yi ndax sëriñam la mhm. saaga yooyu nag kon defe naa ne bu ko waa opposition doon def aji saar moom du di wax ak ñoom kon ña doon def waa kër Macky Sall ñoo lay saaga mhm. Ami Njaay ñii bi moo fi jël sa rakk xaw ma sa doom Cheikh Moustapha Sy al al Maktoum mii wax ko xas ko saaga ko ba mu ko xasee saaga ko ñi wax mu ne maa tey ba mu paree waa APR a jógoon di ko tàccu daa di def seen déclaration ne li ami njaay ñii bi def ànd nañ ci. te sëriñ bu fi yemut daañ la yemale. kon ñoom ñi taxaw pour mu yemale sëriñ si. ñooñu ñoo moom waxi Cheikh Maye ji. Mhm. jóge ca Thérèse Diouf fay def ab déclaration am daat ne. Mhm. ku am sa sëriñ demal yedd ko. sëriñ bu fi yemut. <laughs> boo ñëwee ci boo fi waxee. fu ko yemut sa place ñu yamale la fi. <laughs> waaw kon nag. Cheikh <laughs> Maye saaga yi am na. waaye ñiñ moomale saaga yi du ñoom. ñi fiy rëccale di saaga. waa peer la. loolu moom lu leer nañ la te lii ma wax kenn du ko dindi. Mhm. voilà. bu dee nag Sonko ak Touba. ak Tiwaawoon ak Kaolack ak globalement nag kooku mm-hmm. moom benn problème la. Mm-hmm. mooy sëriñ xamut pouvoir ak opposant mm-hmm. waaye sëriñ daa ami bëkk néeg te bëkk néeg yooyee. ñoom dañoo xàmmee pouvoir ak opposition ndax bu fa pouvoir ñëwee seeni poste day am nu mu demee. bu fa opposant ñëwee day am nu seeni poste demee. ñooñu nag duñ sëñ bi waaye ñoo wër sëñ bi. loolooy jafe-jafe bi. problème bi nag mooy. sëriñ moom yomb naa lijjanti ndax koo xam ne bu la woow woon sëñ Muntaxa bu woon Sonko ba mu ñëw mu ne ko yow a Sonko ba mu ne ko waaw mu ne ko mbéll mbéj waaw maanaam nit ñi bu ñuy xool duñ ne lu tax sëñ bi mbéj ko dañ naan bu ñu ko mbéjee nu mu def waaw waaw buñ ne ah moom de daa raay leex bi sëgg na cell ñu ne ndeysaan ku baax la kooku nag xeex ak moom yo maanaam du xeex ak sëriñ sax amut waaye jëflanteeg moom laay wax lu yomb la mooy da nga koy jox cërub kilifa bi ko yàlla jox ndax dangay xam ne li ko yor mhm. bu ko tegoon sëñ Muntaxa xaadu moo koy for ndax soxlawu ko mhm. te li sëñ Muntaxa yor it bu ko wàccoon Sonko du ko for te ñaar moom bu ñu bokkuti intérêt mhm. duñ jote dara li am solo mooy ñi ci diggante bi di jéem a ruux ruuxal ñooñu nag ngay moytu Mm-hmm. mooy fexe bay jëflanteeg sëriñ si boo fa waree dem demal bu neexee demal bu ñu la fa poñe woon it mm-hmm. bul ko wax kenn boo génnee raayal rek te jàll mm-hmm. parce que li Ablaye Wade daj kër kër sëriñ si waaw Macky Sall daj ko fa Sonko du ko daj man oustaz Mbacke Sylla mii mas na maa nettali ca mill 2010 ne ma dafa dem di siyaare sëñ Abdou ci wetu ci gàmmu gi fekk Macky Sall ak gàngooram toog ci salle entente bi sëñ bi nekk ca biir néeg ba waaw ñiy ron jël par kenn di muy dugg bi mu amee ñu jékki daal ne ko ah euh, Mbacke Sylla ak ak ak oustaz Aliou Sall ñëw toog waaw ñu daal di tijji daal di war a woo Macky Sall xool gis oustaz Aliou Sall daal ne oustaz ñëw leen mhm. oustaz Mbacke Sylla jóg na ko eh kii Macky Sall mi moo ñu fi jiitu mhm. waa ji ko déedéet yéen ñëw leen rek oustaz na ko duñ dugg na Macky Sall dugg ba noppi ñu doo ko dugg ne ko yéen nii rek ngeen di def kii bi mu nekkee ministre xamoon ngeen ne du ngeen ko def nii tey opposant la rek ngeen bàyyi ko fii di wax day dugg mhm. lijjanti ko ba mbakki Sall dugg mais loolu noonu ak acte boobu noonu fan la ko sëñ Abdou di yége ndax bëkk néeg bi ko def du ko ko wax Macky du ko ko wax kenn du ko wax ku fa dugg say soxla ngay wax te dem mhm. looloo tax lii xew ki sëriñ si day bari mhm. waaye nag li ci sëriñ bi yëg bariwul waaye lenn lu ci jara wax amul ndax barab boo xam ne boo demee li nga gën a fonk mooy sa jëmm da koy jël teg ci suuf mhm. summi sa mbaxana teg fa sa daraja soo fa demee kuy mel na luy wàññi sa daraja kooku demee mel ne yow lay jàppale Sonko nag juróom-ñaari euh, pouvoir moo am Sénégal juróom benn yëpp xeex nañ ko luñ ko dara benn bi mu dese nag maanaam intelligence koy doxal bu njëkk bi mooy kurus sénégalais bu lay xeex li muy njëkk a def mooy dem ci son yi bu ne ko wirdal ma ko mhm. Sonko moom biñu ne bërët la lay wóor ne kurus nañ ko waaye yàlla dogal nag borom kurus yi ma xam ci réew mi ak ñiy dox ci lasaraar mhm. buñ dee téeméer mën ngaa jàpp ne quatre-vingt-dix yëpp Sonko lañ bëgg mhm. loolu moom yàllaa ko ci dimbali jàpp naa ne kuy xaar foofu du baax mu des poiru làmmiñ mooy dem ci rajo bi tijji micro yàq ko ñu teg ko ko muy journaliste yi doxut des poiru géwël géwal du ne taxaw carrément ne biti mbub baaxoo ah. géwal moom day gaaral danaan day ñëw ci kër gi fekk benn jeeg bi may ko dara mu ne ah yow de yaay jeegub jàmm bi yow de doo wax luy taj kër dégg nga ñëw ci soñe bu soñe bu ne ko ey mbay yow sa mbaxana wengut comme yooyu <laughs> ak ak comme ni xaarim sàmb def def def def ko ah yow bëgg ko gone yi dàmpalu guddi xam nga yooyu <laughs> <laughs> yooyu géwal yi def nañ ko def seeni façon waaye doxut waaw mu des poiru euh, nu mu tuddati maanaam sistis justice bi nag. ñu accusé ñi ngi fi ñu ñeme yàlla ñeme wax dañ maa saaga dañ maa yàqal li ñem ñi ngi fi. justice mhm. bi pouvoiram a ngi fi. Mhm. waaye maanaam temps moo amul. Mhm. diggante bii ak ak élection ya maanaam yàq fépp candidat ba du bokk. waaw temps boobu moo amul. temps bi amul waaw moo tax justice bi tamit fare nee. mu des businessman yi businessman yi mën nañoo investir. waaw waaye boo leen nee investiral ci ndox mii. mën nañ koy investir de waaye dañ naan lu muy jural. waaw Sonko nag koo joxoonu kaamil ne ko waatal na déwén maanaam du du nekk président Sénégal du ko waat hmm. looloo tax investisseurs yi dañuy bañ milliardaires réew mi dañuy bañ def ci seen milliard ba noppi suba waa ji falu moo tax ñoom itam seenub xeex amatul solo léegi nag benn xeex a des mooy xeexub sëriñ mooy fexe ba lijjanti ba am sëriñ su nangu daal ne ah Sonko kat du ko baax parce que xam nañ ne li sëriñ si man ci Sénégalais yi ñoom danga ko ci man hmm. loolu nag du yomb ndax sëriñ moom nanguwut ku ko jënd nanguwut ku ko waxaale li nga man mooy nax ko Ah. dégg nga wala nga juumloo ko mhm. Sonko nag mooy xam ne nit bu fekkee daa yor dara mhm. dem ba yëg ne mi ngi koy ñàkk mhm. te yëg na ci yow la jëm muy wax ngir bañ mu yegg si ci yow yow war ngaa muus ba doo wax lu dëpp lu dëpp yëfi loolu rek moo ci am mooy sëriñ si moom bàyyi lañ yaakaar lañ da ngay dem ci ñoom di dem boo waree dem rek demal waaw dégg nga lu la fa neex ak lu la fa naqari boo fa jógee jërut nit ñi ko yëg dégg nga bu ko defee nga continuer ak ñoom politiciens yëpp nag bu gaa nag ñëpp ku ci waxoon li muy daj ci kër sëriñ si nga ne déedéet mais loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy seere la rek. waaw saa bu la yàlla joxee li ngay wër. Mm-hmm. bu boobaa maana mbir yi soppiku. d'accord waa macha allah jërëjëf Cheikh baara Ndiaye borom def gis Cheikh baara 4 minutes ñu dese. Euh, sabar 4 minutes yi nag euh, loo ci ñëw. tey ci kii yi dama ci njëkk a ñëw ci euh, ni ma xawee chance programme liggéey bi. waxoon naa ne léegi 13h la tàmbali bu dee nag samedi. Mhm. ak dimance mhm. ak jeudi. Mhm. nañ ko jàpp samedi ak dimanche ak jeudi. école ma Sall laay xëy. école Madieye kooku midi la ñuy tàmbali wala 11 11h 11h midi rek. incha allah dinañ tàmbali. incha allah mais yeneen suur yi nga xam ne muy lëndi ak mardi. ak vendredi. kooku ñi ngi. école ñu ngi ñu ngi tëngéej kooku dañuy tàmbali mm, treize heures la ñuy tàmbali. treize waaw. Mm. léegi nag ajjuma suba bi ñu ngi tëngéej cité Sëñ Mansour ci terminus su 48 bi. Mm-hmm. foofu la ñuy nekk. waaw cité Sëñ Mansour terminus su 48 bi. Mm-hmm. Euh, samedi ak dimanche ñi ngi école ma Sall. waaw lëndi mooy bés bi nga xam ne mbirum rab la ciy traité. Mm-hmm. maanaam ku rab jàpp mu wax. mënoo am jëkkër mënoo am xaalis téye sa ngóora mënoo am doom loo yaakaar moo di ko tas yooyu yëpp boo ñëwee ci bis bi dañ koy faj ci bis bi mais bala ngaa ñëw da ngay mm-hmm. nga ne damay faju rab ñu jox la ñu jox la ki parce que nit ñi jël nombre bi bëriwul mm-hmm. mardi mooy jour bi nga xam ne mbirum sangat ci ubbiku ak bayre ak wërsëg sa ñuy sangate mm-hmm. cangat yooyu euh, tamit dafay ànd ak seet seet bi boo ko ak seetu ramli yii ñu ma xamee woon muy affaire seet tomb nii góotal la layaani waa gëf bëdd na samra ah, déedéet bi horoscope lay gën a jege maanaam du horoscope waaye seetu biddiw la waaw mooy nit ki bu ma joxee date de am at mi mu juddu hmm. wala bis bi ak at mi ak weer wi mu juddu rek hmm. maanaam danaa ko seetal seet goo xam ne mën na ko topp à mooy dinaa la wax yow la kan fi mu ne son saa njóogu son bu la tax mu bëggub sikkim sëqal bopp mën naa am mu gaaw a mer wala boo ko ñaanee xaalis rek boo ko ñaanoon juróom mu may la fukk maanaam loolu noonu maanaam lu ko lu nekk ci moom la loo xam ne ci biddiiwam la munu ci dara voilà yow li tax xëy na euh, mën ngaa toog weer doo dem fenn dégg nga <laughs> li tax ak li tax mënoo sañse <laughs> dégg nga. Ah, waaye Sëñ li mu wax nii toog weer doo dem feer. Ah, non yooyu loolu ci. da maa da nga may seet. dégg nga waaw <laughs> yooyu. maanaam nga xam ne ci yow lay nekk. am na koo xam ne bu amoon milliard tey dana nit ñi ñëw leen. am na koo xam ne moom balaa am lu ko neex tëj bunt bi taal taal kilim bi ta nekk ci ruqam. <laughs> dégg nga loolu lépp ci at yi la ak ci weer yi ak ci loolu ci biddiwu doomu aadama la. <laughs> am na ñoo xam ne fii ne doo leen mës gis ñu jël seen bopp esthétique. Mhm. dañ ko duñ ko def. Mhm. ñooñu octobre la. am na ñoo xam ne ay dàll lañ bëgg ñooñu ndox la. Hmm. dégg nga am na ñoo xam ne. no kenn ku ne dafa am kii. waaw euh, non février xam nga dafa am de weer wu nekk ñaari biddiw a koy jàpp seet. Hmm. dégg nga ñi juddu février ca ca duma ko jàpp nii nii nii nii. mais boo ma ne woon la nangam février ci laa koy gën a xam mais mars. Hmm. dafa am ñoo xam ne ndox lañ am ñoo xam ne gaynde lañ am na ñoo xam ne kéwél lañ. am na ñoo xam ne euh, nag lañ tóoro mooy ñi bëgg matériel yi. seen bopp rëy. ñu neex baat bëgg ay kii. yu mel noonu 28 février lan la. Hmm? 28 février. ma wax la ko léegi une minute. ma ma ma wax la ko. ah. damay laaj rek. waaw dafa am ku muy laajal. dafa am ku may laajal rek. Hmm. sa bopp la. toog toog werte doo dem boo ko day bari ay fo. day bari day bari font. am xam-xam day nekk nit ko am xam-xam nag bari font. waaw dégg nga bëgg hmm. bëgg ay dàll lool foo ko fekk. dégg nga di gént ndox dégg nga day absenté waaye day amum xel ah. kenn mënu koo nax ah. dégg nga mën na ne cell nag waaye kenn mënu koo nax hmm, mooy mooy mooy mooy ñoo ñooñu ñooñu waaw mooy mooy la départ vingt février ba mars rek douze ah, octobre hmm? <laughs> wax fi jàmm nag ah déet <laughs> douze octobre Cheikh Bara ñoom da nga ko war di waaw ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu dañu am fit duñ rus a duñ rus a wax kenn dëgg <laughs> dégg nga bu dee bu dee ah, dégg nga nitu niti investir lañ nag dégg nga hmm. niti investir lañ maanaam affaire u date bi nga waxoon lan la woon sax waaw noonu voilà d'accord waaw douze la damaa foog ne ci treize bi laa ne douze bi ñooñu dañu mën a investir foo leen fekk ay ma def ma dugal xaalis fii mu génn fii hmm. yooyu la ñu bëgg mais nitu wërsëg lañ nag duñ sonn ah. dégg nga mais suñ dul ñaanlu nag dañu mel ne ko waaye di quoi boo leen gisee. man de niruwuma la ko waaye di. non non waaye yow waa léegi baax na. waaw non yow la de. man man a yéen a di ceeb dafa gën a xóot. waaw maanaam nit ku boo dul ñaanlu yow. rafetalal waaye di yow di yow bi boo dul ñaanlu di nga manqué de maanaam dinga nga dund. Ah, ba faatu di nga manqué jëkkër wala nga manqué doom wala nga manqué dara ci àdduna. <laughs> il faut ngay ñaan baax na waaw xaaral léegi baax na am na keneen ku judd comme yow. xam nga li damay def gis nga. sa temps jeex na il faut ngay ñaanlu. pour sa àdduna mat quoi. farataalu ma ko nag. boo dul ñaanlu nag da am manquement ci sa àdduna.